أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي عندك ينتي téere bi di kitaabu tawxid tey ñu jël bunt bu bees ti muy maa jaa an alxuluwa fi quburi saalihin yusayiruha awsaanan tucbad min dunillahi bunt bi liñ ciy jàng mooy boroom xam-xam yi dañuy leeral ne ñu ëppal ci bàmmeelu nit ñu baax ñi day yóbbu doomu aadama ba mu def ko xërëm di ko jaamu bàyyi yàlla di dem ci bàmmeelu nit ku baax ku faatu di fa barkeelu walla di ko raay walla walla walla fu muy mujjeeg yow mooy yu sayyiruha daf lay yóbbu wala mu soppi la ci bàmmeel boobu aw saanan mu nekk xërëm ci yow su mujjee nekk xërëm nag fan ngay mujj nekk mooy nga jaamu ko bàyyi yàlla bunt boobu moom la ñuy jël tey ci kitaabu tawxid tomb bi ci njëkk mooy xadis bi ñu jëlee ci imaamu Malik ci téere bu tudd mu waxta imaamu Malik nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na allahumma la tajcal qabri wasanan yucbad istadda gadabu llahi ala qawmin ittaxasu qubura anbiyaihim masajid imaamu malik moo ñuy nettali xadis bi waaye bala ñuy jël xadis bi mën nañoo coppati ci dund lenn ci dund góor gi di imaamu malik imaamu malik góor gu tudd anas mooy baayam léeg-léeg lenn ci ñun di jaawale anas ibnu malik ak malik ibnu anas dafa ne anas mële mooy baayu malik anas mi doon ànd ak yonent bi déedéet yàlla dafa def rek daje am tolloole am ni mu amee anas ibnu malik mu am malik ibnu anas waaye anas du bàyyu malik bële doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon saxaaba anas mi malik mooy bàyyam moom tamit gis nga kon sooy xool ñoom ñaar dañ naan imam malik kan lañ ko tuddee loolu de ku ko gañe ma jox ko kaamil imaamu malik kan lañ ko tuddee xaar ma génne kaamil yi imaamu malik kan lañ ko tuddee kon yéen déggu leen sama dars bi xaar ma commencé waat ko
bàyyi baras
maamam lañ ko tuddee papaay anas maanaam moom mu ngi tudd malik ibnu anas ibnu malik dégg nga wax kon moom imaamu malik maamam la ko papaam tuddee papaam moom mu ngi tudd anas waaye ki jur papaam mu ngi tudd malik
maamaati maamam topp Anas.
waaw waaw gis nga kon ñoom dañuy topp càllale gi di tuddanti ibnu amir ibnu amr ñëpp ay maamu malik lañu imaamu malik al asbahiyu abu abdullahi al madani waaye imaamu malik amoon na dàkkantal bu ñu ko doon wax mooy baayu abdallah waaye almadani imaamu malik ci waa Médine la bokk suñu waxee Médine xel dem ci suñ nee Médine xel dem ci suñ nee Médine xel dem ci suñ nee Médine xel dem ci ma madinatul munawwar xel ci kan lay dem ah ci yonent bi kooku moo doon dëkkam di fala faatoo fa lañ ko denc ci jàkk ji yonent bi daan jiite fala Malik daan toog yonent bi daan wéeru mu wéeru fa léeg-léeg mu wax ba ci yàgg mu jël loxoom ndeyjoor bi daal di koy teg ci bàmmeelu yonent bi nii mu ne waxu ku nekk dinañ ci sikki sàkk ba mu des waxu kii kullul kalaami yuxaz wa yurad illa saahibu haza alqabr imaamu Malik moom imaamu Malik Madina la juddoo ci atum salaasa wa tisiin atum juróom-ñeen fukki at ak ñett lil hijrati ci gàddaayu yonent bi bi yonent bi gàddaayee ba mu am juróom ak ñett ci la imaam Malik judd mu màgg ci dëkk boobu di Médine dund ndoog saxaaba yi xam ngeen ne ku màgg Médine ci waxtu yooyu yow sens bu rëy bi nga am mooy gis nga saxaaba yi am na ci ñoo nuyoonteel am nga ñoo jonjonteel am nga sax soo moytuwul ñoo ci màggandool waaye wa taabiin ñi topp ci saxaaba yi imaam Malik am na sens bi dundandoo ak saxaaba yi waaye dundandoo ak taabiin yi ñu topp ci saxaaba yi kon moom taabiin la imaam Malik fa naqala fa naqala aathaarahum toxal na xam-xamu saxaaba yi ak taabiin yi da ko toxal jële ko ci ñoom indi ko ci boppam wa xafisa aaraahum mu mokkal seeni xam-xam seeni gis-gis mu mokkal ko wa axasa al ilma an fuqahaiha képp ku mu déggoon fóore nga kàngam nga bopp nga imam Malik dem na ci yow jël lépp lu amul te ku doyoon waar la ci ni mu doon jànge da daan wax fekk naa ku wéeru ci poto bi jàkka ci dafa amoon poto naan yonent bi nee na waaye jëluma ci moom xam nga ki wéeru naan yonent bi nee na kooku moom jëliwul fenn xam-xamam fudul ci yonent bi direct lan moo tax mu ne fekk naa ay kàngam di wéeru ci tabax bi naan yonent bi nee na ma romb leen lu tax mu wax loolu mooy dafa xam ne ñi ay saxaaba lañ ñu ne ko Malik lu tax nga romb fi ñii jàngoo ci ñoom mu ne ñii dañ doon dégg bi ñu bind mën nañoo juum man dama daan dem ci ñi dégg di bind moo tax mu ne jël na seen xam-xam xatta saara xujjatan fil xadis ba mu mun a nekk ba mu mujj dem nekk nekk kiimtaan nekk aw lay ci xadis moom dong moo amoon ñu tuddee ko tur yi tuddee ko madrasatul hijaz ñu ne golf bi li muy rëy rëy rëy imam malik mooy école bi garaat bi gën a rëy bi ñu ko takkal mooy laa yufta wal maliku fil madina kenn du fi ubbi kenn du fi nekk mufti ku dul imam Malik fekk Malik a ngi fi kenn du fi ifta loolu rëy na de moom imaamu Malik imaam la woon ndeysaan ci fiq waaye misaal la woon ci dëddu àdduna li muy rëy rëy rëy yëpp ci wan la ne dafa dëddu woon àdduna amul woon kër da doon luwe imaam Malik mu ne wa ahadul muttaqina muttaqinina lil xadis kenn la ci ñu maîtriser woon xadis moo tax moom moo njëkk a bind téere xadis imaam Malik bu ñu la laajee ban téere xadis la njëkk a bind ci téere xadis yi waxal téere imaamu Malik téere bi nu mu tuddoon muwatta muwatta Malik moom la njëkk a dajale def ko benn xadis muwatta mooy lu ñu lu ñu nosay organiser ko mu ne al imam Bukhari xam ngeen al imam Bukhari mooy borom téere bi gën a wér ci téere hadis yi nee na boo buggee xam asaxul asanid boo buggee xam hadis yi yonent bi wax càllala yi ci gën a wér mooy càllala yi an nafi an ibnu umar an malik boo demee ci téeram mu warta boobu danga fay fekk jële nañ ci malik mu jëlee ci naafi mu jëlee ci abdullah ibnu omar mu jëlee ci omar wala mu jëlee ci yonent bi lu tax mooy malik bi mu nekkee xale naafi moo ko doon jàngal kan mooy naafi taalibi ibnu umar la woon mbaay yàllam la woon jaamam la woon ba ci yàgg mu goreel ko moo daan jële ibnu umar këram indi ko ci jumaa ji mu jiite su paree toog jàngale bu paree mu delloo ko këram bi kooku faatoo moom ndongo bi mu remplacé sëriñ bi ci mu doon toog kon Malik dafa remplacé Naafi Naafi remplacé ibnu umar ñoom ñett kenn du ku nekk fi sëriñ bi doon toog toog nga xam lu tax kon yow nekkoo woon rek daan yóbbu sëriñ bi di jàpp ci yet bi kese yóbbu sëriñ bi rek comme di ko ñenn ñi di defee man fanweeri at maa ngi tax ak sëriñ bi ñu naan ma nangam lépp fanweeri at maa ngi jàng ci sëriñ bi takkook sëriñ bi taxul nga am xam-xam jën su juddoo ci ndox jën rek lay nekk waaye xeer it bu nekkee ci ndox du mu di yàgg ba nekk jën yàgg ci ndox mi tamit du tax mu nekk jën takkook sëriñ bi te sëriñ bi jàngalu la buy jàngale yow nga naan eskay rek eskay eskay xamoo dara ci li muy wax taxul nga nekk borom xam-xam bu fi sëriñ bi jógee ëllëg kenn du la jox jàkka ji wala kenn du la jox mbooloo mi parce que jàngoo waaye ñii ñoom seen ànd lan la woon ah jàng kon ngeen xam ne ñii jàng lañu àndoon ak seeni sëriñ jàng mu ne imaam Bukhari nee na soo bëggee xam asaxul asanid mu ne mooy Malik an Nafi an Ibnu Umar waaye moom sëriñ bu mag bi mu imaamu Malik faatu na ci atam juróomi téeméeri at ak juróom ñaar fukk ak juróom benneel ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy faatu am na ñu ne am na juróom benn fukki at ak ñeent am na ñu ne am na juróom benn fukki at moom imaamu Malik nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na mu ne allahumma yow yàlla laa tajal bul def xabri sama bàmmeel wasanan mu nekk xërëm yubat ñu koy jaamu yenent bi nee na istadda tar na xadabun mer xadabullahi meru yàlla ala qawmin ci ay nit ittaxasu yu jàpp xubura ambiyaihim seeni bàmmeelu yonent masajid def koy jàkk maanaam suñ delloowaat ci hadis bi wala ñu indi beneen hadis bu mel ne moom boo xam ne nekkul ci mu watta waaye mu ngi ci musnadu imaamu ahmad foofu dañ koy fekk an suhayl ibnu abi salih an abihi an abi hurayrati rata rafa'ahu allahumma la taj'al qabri wasanan la'ana allah ala qaumin la'ana allah qauman ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid mana hadis bi dafa am yeneen terme yu mu ñëwee ci yeneen téere te maana bi nekk benn te ñi ko solo dunu benn soo demee ci imaam ahmad danga fay fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla naan yow yàlla maa ngi lay ñaan allahumma saa yoo ko déggee rek ñaan la ci lu ëpp mu ne yàllaa ngi ñaan yonent baa ngi ñaan yonent bi lan lay ñaan mu ne yàlla bu yàlla def bàmmeelam xërëm bañ koy jaamu ndax meru yàlla tar na ci ay nit yoo xam ne dañoo jàpp seeni bàmmeelu yonent daf ko jàkk soo ñëwee ci musnad imam ahmad soo ñëwee ci musnad imam ahmad mais dañ koy fekk yonent bi naan yow yàlla yàlla boo def sama bàmmeel xërëm ndax alkande yàlla rëbbum yàlla nekk na ci ay nit yoo xam ne dañoo jàpp seeni bàmmeelu yenent daf ko jàkk mbokk yi ñaan googu yàlla nangul na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dimbali na ko ba bàmmeelam defuñu ko mu nekk xërëm nee na dalal xadiis xadiis bi dafay wone ala anna qabra nabi sallallahu alayhi wa sallam law ubida lakaana wasanan hadis bi li mu lay woon mooy bàmmeelu yonent bi buñ ko jaamoon lu muy nekk xërëm xërëm lay nekk léegi moo lay woon ne bàmmeel yi ñuy jaamu tey lan la xërëm la tey bàmmeelu yonent bi buñ ko ubbi woon kan ci ñun moo fiy jógee dem ba foofu te raayoo ko bërëmu ci waaye gis nga buntu boobu yàlla da ko na yonent bi da ko ñaan yàlla yàlla tëjal ko ko moo tax ndeysaan al imam ibnul qayim mu way ci ay way yu yéeme mu ne fa ajaaba rabbul alamina duaahu yàlla borom mbindee fi de moo nangu ñaanu yonent wa ahaatahu bi salaasatil judraani nee na ñu daal di koy wërale ñetti miir pour bàmmeel bi mucc mu bañ a nekk xërëm ñetti miir lañu miire pour nga bañ a laal bàmmeelu yonent bi boo nee nii boo daaneloon bii it am na fa beneen nga daaneel boobu am na beneen te miir yëpp béton armé la fer pour nga bañ a laal rek pour nga bañ a pour nit ñi bañ a bokkaale. mu ne laakin waaye xamallahu taala. bima xaala baynahu wa bayna annas yàlla subhanahu wa taala moo aar bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam digganteem ak nit ñi ba nit ñi duñ fa bokkaale fala yasilu ilayhi duñ fa yegg di nga gis ku aji màkk dem màkk aj ba aj bi jeex mu dem Medine ziyaare ji da nga koy gis waaye du la ne mukk laal naa bàmmeelu yeneen bi xanaa yenn sénégalais yu ñeme yàlla yi bàmmeel bi kenn du ko laal da nga ko dul gis sax ba koy laal ndax dañ ko tëj mën ngaa seen nag bunt yi mais léeg-léeg nga gis ku naan yërndu naa nii di di wax loo xamante ne dara du ci dëgg ba pare waxuma la miir yi ci nekk mais ay policiers ñoo fa nekk di ko garder ak ay borom xam-xam yoo xam ne dara taxul ñu teg leen fa lu dul fexeel nit ñi duñu bokkaale ndax xam nga ne mbokk yi lu toll na yonent bi fii la tëdd suñ bàyyee nit ñi ku nekk ak sa xër ku nekk ak li nga tàmmoon li nga miinoon mooy buñ nee ku baax fii la nekkoon wala fii la toogoon wala fii la doon lekk rek looy wax jox leen ma ma lekk ci dem nañ benn dëkk bu ne bu tudd Thiès am na benn boroom xam-xam bu fa tabaxaloon sëriñam ah tooñ naa sax boroom xam-xam yi na yàlla jéggal am na benn waay bu fa tabaxaloon sëriñam kër gu rëy bi mu tabaxee kër gi mu defar kër gi occupé ko ba kër gi rafet néeg yi boo gisee lal yim ci def lal yi boo gisee mat la yim ci teg mat la yi daraa yiñ ci lal daraa yi njaganaa yi ñu teg ci kawam parfum yiñ ci sotti moquette yi ñu lal ci néeg bi fauteuil yiñ fa def néeg bu ci nekk bi ñu demee ñu ubbil ñu kër gi ñu ñuy ubbil néeg yi di ubbi néeg yi ba ñu yegg ci néeg bi nga xam ne nee na néeg bii bis bu fi sëriñ bi egsee ci bii la war a fanaan waa ji ubbi bunt yi nag ñu léegi ñu ñu dugg ci digg néeg bi nag taxaw di xool xam nga lu ñu waaj wax après tëdd leen ngeen barkeelu gis nga tëdd leen ne ko ah sëñ bi tëdd pour lan du ngeen barkeelu fii la sëñ bi nar a tëdd waaw dëgg yàlla de tëdd ñu déedéet tëdd bu fa mun nañu mun nañu tëdd leen waaw da yàlla duñ tëdd nag loolu lépp da lay woon rek nit ñi mooy li ma la wax seen xër moo leen di yóbbu ba tey bu ñu déplacé woo ñëw ba ci bàmmeelu waa jooju suñuy dem duñ dem ak sago bu ñu yegsee duñ egg sago du ñu jéem a xam li yàlla wax ci ni ñuy ziyaare bàmmeel ci lan la ñuy ñaan lan lañu war a wax lan lañu war a def déedéet ñoom lu ñuy suñuy dem rek li leen di yóbbu mooy li leen animé woon ca ba ñuy dem mu ne yàlla aar na bàmmeelu yonent bi fa fala yusalu ilayhi kenn du ci yegs mu ne wa dalal xadis xadis bi mbokk yi day tegtale ne ala anna al wasan naka xërëm wa ma yubashiruhu al aabid min al qubur soo bëggee xam xërëm mooy lan mooy loolu gaa yi di jonjool ci bàmmeel yi loolu mooy xërëm loolu ñuy jonjool ci bàmmeel yi mooy xërëm yéen gis ku dem ci bàmmeel commencé raay bàmmeel bi wala jël morceau di fomp jël parfum di sotti commencé toroxlu simmi mbaxneem di di di toroxlu loolu xërëm la loolu la ñuy tere loolu dañ koy tere boroom xam-xam yi dañ ci wax ndax yonent bi dafa ñaan yàlla ne yàlla yàlla boo def sama bàmmeel xërum ñu koy jaamu mu ne wa tawaabib allati alayha ak yenn yi gis nga tey liñ ciy def yooyu yëpp dafa wane ne lii xërëm la mu ne waqat azumat al fitan mbokk yi tey ñun ñu toog fii ci jumaa ji sunu waxalee yàlla farfarloo wunu bokk ci mbooloo yóbbaale wunu danañu gis ne qad azamat al fitnatu bil qubur tey fitna dugg na ci bàmmeel yi fitna am na ci fépp fu ñu suul ku baax bokkaale am na fa lu ko fa yóbbu mooy nit ñi màggal gi ñuy màggal palaas boobu ak bërëb bi ak nañ koy defee teguwul ci xam-xam moo tax la ci ëpp nekk bokkaale maanaam mu ne tey fitna am na bil qubuur ci bàmmeel yi naka la amee bi taazimiha ci màggal gu ñuy màggal bàmmeel yi wa ibadatiha ak jaamu gi ñu koy jaamu bàmmeel kenn du ko jaamu da ngay gis ku jëm ci bàmmeel du dox day raam nga gis kii moom dafa jëm ci bàmmeel day simmi mbax naam waaw simmi mbax na mi da ko karaas dugal ci ci biir poosam commencé di raam wala ñëw di tëbb ci suuf si wala di ko raay wala loolu mooy fitna gi rëy ñii dañ koy jaamu ñii di ko màggal loolu nag mooy fitna gi kama qaala abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud kenn la woon ci ndongo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay saxaabaam yi mu yar ñu waroon ko nee na kayfa antum ida labistukum fitnatun yuxramu fiha alkabir nee na tey yéen de yéen a ngi nii muur na leen fitna fitna goo xam ne màgget nit màgget na ci nit màgget na ci ndaw juddu na ci allahu akbar waaw am na ñoo xam ne màgget nañ ci bàmmeel yàgg nañ ci waaw am na ñoo xam ne ci lañ judd ndeysaan ibnu ibnu mas'ud nee na am na ñu màgget ci bàmmeel yi tey gis waa ji mu ne la man foofu rek ndeysaan weer wu nekk bis bu nekk mu dem ci bàmmeel yi ci xërëm yi waaw yees luwaat ñëwaat mu ne ay nit màgget nañ ci waaye ay nit juddu nañ ci nee na tajri ala nnaasi yattaxizunaha sunna mais ni ñenn ñi sax dañoo dem ba ni loolu sunna la loolu jaamu yàlla la ci la bokk ci jaamu yàlla gi la bokk dañ koo programme ci la bokk sunna lañ ko jël jàpp ko boole ko ci jaami yàlla yi gën a mag ci ñoom mooy foofu dem rek yal na yàlla jubal yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal lu ñu topp yàlla ñu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori nee na isa xuyirat xiila xuyirat maasa assunna mu ne waaw lii moom kañ ngeen ci soppeeku is xuyirat ndax mbir mi de soppi na lu bare bari ñu ne ko abdullah ibnu masud bàmmeel yi ñuy def lan la changé lan la soppi mu ne soppi na sunna waaw bàmmeeli soppi na sunna dem ci bàmmeeli moo tax sunna dee kenn xamatul nu ñuy jaa nu ñuy ziyaareeku dee yoon dana woon dem leen ci bàmmeeli maa leen ko tere woon léegi digal naa leen dem leen ngeen ziyaare ji bàmmeel yi lu tax daf leen di fàttali dee tey nag niñ koy defee ak façon yeeg ëppal géeg ñàkk a xam ngi dem na ba sunna bi réer kenn xamatu ko tey boo dajoon fukki nit yu dem ci bàmmeel yi nga ni leen waaye su ngeen demee lu ngeen di ñaanal ki tëdd ñu ne la ñaanal ko si yow xanaa dama def ñun ñu ñu koy ñaan nga naan nañ ko ñaanal gis nga moo tax mu ne mbir yi soppi nañ ko mu ne wali xaw fihil fitna ci ragal gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ragal fitna wala wali xawfihi al fitna ci ragal gi nga xam ne ragal na ko fitna kan ñu ne Omar radiyallahu anhu Omar ibn al-Khattab loolu moo tax mu tere lan anit tabattu'i asaaru nabi loolu moo tax mu tere ci nit ñi ñu bañ di barkeelu ci li yonent bi bàyyi woon di ci barkeelu Omar ragal gi mu ragal fitna su bàyyee nit ñi ku ñëw ne damay barkeelu damay raay damay fóon Omar daa di tere nit ñi Omar ibnul Xattaab mu tere nit ñi ne bu kenn ñëwati fi naan nday barkeelu ci yonent bi lim fi bàyyi mu ne qaala ibnu waddaax sami'tu isa ibnu yunus yaqul omar amara omar ibnu alxataab bi qat'i alshajara allati buyi'a tahtaha annabi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam bu mag nee na bu ñuy wax isa ibnu yunus nee na maa dégg omar di digle di joxe ndigal naan garab gi yonent bi toogoon doon jaayanteeg sahaaba yi keroog ca bay atu ridwaan garab googu nga xam ne yàlla tudd na ko ci alquran laqad radiyallahu anil muminin is yubayi'unaka tahta shajara isa nee na maa dégg Omar di joxe ndigal naan garab googu nañ ko gor nañ ko dagg allahu akbar moo mbokk yi lu tiitloo Omar ibnul Xattaab ragalloo ko ba muy joxe ndigal garab gu yonent bi dajale woon saxaaba yi toog ci garab gi yàlla tudd ko ci alquran Omar joxe ndigal nañ fi jële garab gi xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax Omar Omar def ko nee na li anna naas ndax nit ñi kaanu yazhabuuna fa yusalluuna taxtaha nit ñi dañ daan dem naan xaaral ma julli fi ñaari rakka ku xëy rek gàdd sa sijaada foo jëm ca garab ga loo fay uti damay julli ñaari rakka foo jëm garab ga ñaari rakka foo jëm garab ga ñaari rakka Omar ne gor leen garab gi Omar daal di joxe ndigal nañ gor garab gi allahu akbar kan moo toogoon ca garab ga yonent bi garab bu yàlla tudd ci Qur'an waaye Omar ragal nit ñi dugal bokkaale ca garab ga fàtte li fi yonent bi indi woon yonent bi indiwu fi garab gi du garab gi moo tax mission bi jóg nit ñi loolu mooy problème dañuy fàtte farata di def sunna xoolal tey da ngay gis ku bëri ñu bëree bëri ñu bëri laa wax ci àdduna bi ñu topp loo xamante ne nekkul ci alquran nekkul ci sunna yàlla wax ko yonenti wax ko ñu koy màggal di ko ziyaare di ko fóon di ko raay ak di ci barkeelu fekk du alquran du sunna du farata du dara nga gis nit ñi gëm ko di ko def xoolal lii Omar moo gis nit ñi gàddu seeni basang ak seeni sijaada jëm ca garab ga Omar ne ñii fu ñu jëm loolu la wax fu ñu jëm ñu ne kaanu yazhabuuna fa yusalluuna taxtaha dañuy dem di julli ji ca suufu garab ga yonent bi baay jaayante woon ak gaay fa xaafa alayhimul fitna omar ragal ci ñoom bokkaale omar daal di gorlu garab gi bu omar ñëwoon tey sénégal wa qaala al maaruur ibnu suwayd mu ne sallaytu maa ibnu omar ibnu alxataab bi tariqi makk keneen ci kàngam yi nee na man de dama ànd ak omar ibnu alxataab ci benn yoon ñu jëm makk nee na ñu julli suba salla as subha ñu ànd julli suba julleendoo ci mbooloo ci suba summa ra annaas après Omar gis nit ñi yazhabuuna mazahib nit ñi def ay groupe groupe mbooloo mbooloo di dem fa qaala ayna yazhabu haula Omar ne ñii fu ñu jëm fa qiila ya amira almuminin gaa yi na ko yow njiitu jullit ñi masjidun salla fihi nabi sallallahu alayhi wa sallam fa hum yusalluna fiha ñu ne ko boo wàccee nii ci suuf rek am na fa benn jàkka bu yonent bi julli woon ñaari rakk ñii foofu la ñuy dem di barkeelu ji bëgg faa julli ñaari rakka fa qaala omar ne leen innama halaka man kaana qablakum misla hada li alagoon ñu njëkk ñi mooy lii mooy topp topp watat wi dóor bàyyi jaan ji topp watat wi dóor bàyyi jaan ji gàddu seeni sijaada rek di def ay ñaari ràkk bàyyi farata ak sunna duñ julli suba duñ julli tisbaar duñ julli takkusaan duñ julli timis duñ julli gée te yooyu ñooy farata Omar gis leen ñu def ay mbooloo groupe groupe di julli ji Omar na waa ñii fuñ jëm ñu ne ko am na benn jàkka bu yonent bi julli woon ñaari ràkka fa leen jëm mu ne lii moo alagoon ñu njëkk ña ndeysaan innama halaka man kaana qablakum misla hada lii moo alagoon ñu njëkk ña kaanu yata'abbaduuna asaara anbiyaa'ihim dañ doon jaamu seeni taraas yonent ya trace yonent yi lañ doon jaamu au lieu ñu jël li yonent yi indi woon dañ ko faa bàyyi di jaamu trace yonent yi di trace waaw yonent bi de toogoon na fii nga ni xaaral ma toog xaaral xaaral xaaral bu yàkkam ci nañ rang rang nañ rang ba yegsi fu yonent bi toogoon moom naa fa toog wéeru woon na fii xaaral ñu wéeru naanoon na fii xaaral ma naan fi au lieu yow li la yitteel mooy li fi yonent bi indi woon nga jéem kaa jël li mu jàngale ci alquran ak sunna nga jéem kaa jël déedéet nga ni ko fi ñukk naan musuwaar bu weex la ñend woon il faut ñu ut ci musuwaar bi waaw loolu mooy sunu problème tey maanaam mooy jaan ji dem na ñun ñu topp ci direeku jaan bi di tibb jaan fu mu jaar ku fa jaar lan moo lay wan ne jaan jaar na fi watit bi léegi nag boo tibbee boo tibbee ci suuf soosu jaan bi watatu ndax am nga jaan suuf nga am amoo jaan boo demee loolu nga tibb nga denc ko it amoo jaan suuf kese nga denc ndeysaan benn naar daf maa séen ak mbooloo mu ma àndaloon ci Makka kër gi yonent bi juddoo ma yóbbu maire yi ziyaar ñu ne naa leen ko woni ma ñëw wal leen ko ñu ñuy ñuy raay naar bi ne leen xaraam mu ne ma yee yow du yaa leen indi ma ne ko waaw mu ne waxal ak ñoom ma ne ko wax naa ko dañoo dañ maa bañ a déggal mu ne wax leen lii tabax kese la ciment la bàyyi nañ ko Sénégal lii miir la est-ce que waxul dëgg miir la ciment la ciment la bàyyi nañ ko Sénégal ciment la waaw gis nga loolu mooy problème mu nit ñi yonent bi julli na fii ñaar rakk rek nga gàddu sa sijaada ah ndeysaan nee na fa man adrakahu salaa omar ne leen képp koo xam ne dafa nekk ca barab ba julli fekk ko fa na julli ndax julli da ko faa fekk waaye ku fa julli fekkul bu fa kenn gàddu sijaada di fa mbëkkante ji naan da nga fay julli ji gis ngeen képp nag koo xam ne yàllaa dogal waxtu julli fekk ko fa Omar nee na julli waaye ku fa waxtu julli fekkul Omar nee na jarul nga fay gàddu sa sijaada di fa julli ji mbokk yi suñu tënkee ñaari hadis yi mooy hadisu imaamu Malik bi ak hadisu imaamu Ahmad danañ gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon day bàyyiloon na xel xeet wi bàmmeel du lu ñuy jaamu bàmmeel bokkul ci programme ci diine lislaam lu ñuy jaamu bàmmeel du lu ñuy jaamu kenn warul jaamu bàmmeel yonent bi ci dundam gu mujj ci ay minute yu mujj ci lay ñaan ñaanam gi naan yow yàlla bul def sama bàmmeel mu xërëm laa tajal qabri wasanan yobat yow yàlla bul def sama bàmmeel mu xërëm buñ koy jaamu allahu akbar bu ko def mu nga xool tey sunu réew mooy waxuma la dañuy jaamu xërëm waaye bàmmeel yi moom daanaka niiw na tey bàmmeel buñ jaamuwul waaw bàmmeel buñ ci jaamuwul it soo demee fekk tabax nañ ko ba kenn xamul nu mu mel waaw nii nit ñi mel tey ci àdduna di dund nga mun a romb benn koñ ñu jox la big nga mun a wax kii borom xaalis la kii borom xaalis la kii amul dara noonu nga leen di xàmmee seen kër yi ci biir dëkk bi soo demee ci biir bàmmeel tamit mën a xam ne bàmmeel bi borom xaalis la ki bàmmeel bi borom amul dara wala ah nu ngeen di xàmmee bàmmeel borom xaalis ci ci ci armeel yi dañ koy defar ba waaw nooy xàmmee borom alal ci ci ci biir dëkk bi kër gi tabax ni boo demee ci armeel yi nooy xàmmee kii amul xaalis ndeysaan keroog ba ko gaa yi suulee lañ fa gëj buñ ko suulee lañ fa gëj lañ fa gëj ba ko gaa yi lañ ko suulee lañ fa gëj ndeysaan allahu akbar boo ñëwee ci kër gi it nga xam ne kii féexul loolu nag moom ndeysaan bokkul ci lislaam waaye yàlla waxoon na ko ci quraan mu ne alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqabir bëri lante ak dajale yitteel na leen ngeen yittewoo ko ci àdduna waaye bàyyiwu leen mu topp leen ba ca bàmmeel ya ni ngeen di jaayante maanaa ak bëri alal ci àddina noonu ngeen koy wonee ca bàmmeel ya hatta zurtumul maqabir mu ne ba ngeen dem ca bàmmeel ya di ko foone noonu ñuy jaayee personnalité ak maqaama ak ci oto yeeg kër yeeg nangami noonu lañ koy wanee ci bàmmeel yi waaw waa ji tey lay dee suba boo ñëwee nga fekk maçon bi ñëw na sotti nañ suuf indi ay birig ñu ngi commencé birig armeel bi waaw nga wax ñu ne dañ koy tabax am na benn waay papaam dafa gaañu moo doon imaamu jumaa ji comme moom moo doon directeur Sabodala xam ngeen Sabodala mooy fi ñuy génnee or ci Sénégal ah papam gaañu papam moo doon imaamu jumaa ji mu ñëw ne leen ci jumaa ji lañ koy suul gars yi ne ko mukk jumaa ji kenn du fi suul nit loolu islaam da koo tare mu dem ci ay armeel ci wetu fi mu dëkk mu jënd fa lu toll ne sunu jumaa ji ci biir armeel yi su ma waxoon armée li ñëpp xam tabax bi fi mu nekk jumaa ji fi ñu suul góor gi nii la toll ni jumaa ji ñu toog mu jënd ko ci biir armée li ci bis bi ah ñu ñëw suul fa góor gi loolu mooy lan trois jours ñu yëkkati ko ba ci kaw ba fii may wax ak yéen ci armée li yooyu tabax boobu moo fa gën a rëy mooy lan man dama am doole mu fàtte ki jàpp góor gi moo ko ëpp doole dina jàpp baayam jàpp ko moom ci boppam na xam ne amul doole ki jàpp sa baay yéen ko ba ci kaw ne ko tët ngay xaar ngay jaay doole tane mu dina la ci teg allahu akbar nit ñi dañu réer alalu àdduna sànk leen kenn ci ñun du toog xelam dem ci yàlla xam lu at lu dagan lu araam déedéet ku nekk ay maqaama ngay jaay fëgg dënn wala di jaay mbooloo wala di jaay alkande wala di jéem a jaay sañ ba buñ la nee yàlla nee na yonante nee na yow dootoo xoolati yonante nee na yàlla dafa rëbb ay nit yu jàpp seeni bàmmeeli kilifa def ko jàkk loolu waxu yonante bi la ku mer waxal ak yonante bi moo ko wax yonante bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam yonante bi yamul ci loolu dafa ne laana allah yal na yàlla rëbb yal na yàlla sori li yërmande yenent ku mu ñaanal yàlla alku nga qawman ay nit yoo xam ne ittaxasu dañoo jàpp qubur ambiyaihim masajid dañoo jàpp seeni bàmmeelu boroom xam-xam seeni bàmmeelu yonent def ko ay jàkk mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala kon lii mbir la moo xam ne ku mu doon ci ñun war nga ci bàyyi xel mu ne lii inkaarun bañ la minhum li zalika yonent bi dafa bañ ci ñoom loolu bañ ci ñoom lan ñu jël nit ku baax di ko suul ci jàkk wala ñu ñuy barkeelu ci bàmmeel bi wala ñu dem di ko jaamu ci looloo tax doomu ndey yi ñun ñëpp ku mun a doon ci ñun nga fexe ba tomb yi leer ci yow leer ci sa bopp soo demee ci ay bàmmeel nga xam nan ngay comporté woo xam lan moo fa war a nekk sa taxawaay xam naka ngay ñaanee xam loo war a wax xam li nga war a def xam li nga war a bàyyi ndax bu fekkee xamoo depuis léegi soo demee dana nga néew nga génn fa te bokkaale woo dana néew nga génn fa te bokkaale ndeysaan nee na mbokk yi هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار نينا لي لوا مهاجرون ak أنصار defoon ci bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fexe ba tabax ko tabax boo xam ne tabax bi nekk na ñetti miir yu baare nit ñi seen diggante ak bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu tax li allah yuftatana bihi balaa nit ñi di am fitna ci bàmmeelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam balaa nit ñi di jàkkaarloog bàmmeel bi di ko di ñaan yonent bi naan yonent bi dikk naa de dikk naa maa ngi nii maa ngi nii taxaw man la diw waaw gis nga sénégalais yi dañ koy def dikk na yonent bi ñëw naa de maa ngi nii waaw damaa fes dale ki problème nag damaa bëgg yëpp balaa may ñibbi mu réglé wu yonent bi mënut a réglé sa problème mënut a faj sa aajo soo amee aajo wala nga am ay jafe-jafe wala nga am ay problème demal nga diis ko allahu subhanahu wa taala ñaanal yàlla daal la koy regleel amma yonent alayhi salatu wasalaam mënu la ko regleel kon mbokk yi doomu ndey li mooy dar sa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu jumte yi nangul nu ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu